billahi mina seytaana rajim bisimillahi rahmaani rahim barke borom Touba ñoo ngi nuyu mbokki yëpp ak mbokki taalibe si turu samay mbokki taalibe yoo xam ne maay fii seen buntu fii si Touba nga xam ne menn man lan fi xam ma séq ak ñoom ay jëf ak ay liggéey comme këri diine yépp si seen njiit Serigne du Fall ak duma mi Serigne Ablaye ak ñoom laa ree nag ñu baree bari ñu nekk si tiktok bi bokk si ñi nga xam ne dañuy liggéeyal yàlla ci bisi diine yëpp nga xam ne niñ koy defee nii noonu lañ koy defee Tiwaawan noonu lañ koy defee Medina Baay fii nag maa fii seeni bunt te ab dëkk boo fay dem dangay jaar si yoon wi kër it boo fay demit da ngay jaar si bunt bi ñu indi woon seeni addiya jëm si ci màggalu Tuubaa gi 18 safar 2024 si waa muxaddamatul xidma si organisation bi ñoom ñi nga xam ne dañuy dalal gan yi si biir jumaa ji di leen berndeel si wàllu xeewal di leen berndeel si wàlli naan di leen berndeel si wàllu doom ñun nag suñuy àddiyee leen indi woon nii nga xam ne doon ñëw doo leen ko jébbal ñu ànd koog di ko teg si loxob sëriñ maxtaar kan di ko teg si loxob sëriñ maxtaar kan mi nga xam ne moo topp si sëriñ Fallu Mbàkke mi leen jiite man Serigne Abdoul Ahad Lo ñu gën maa xam si Abdoul Ahad Lo Tuxfatu man maa doon indi addiyey waa daayirey TikTok bi muy ñoom Serigne doog ñoom suñ duma meeg euh, soxna duma mi laa bëgg a wax ñoom ñooñu maa doon indi seen addiya ngir teg ko si seeni loxo ñu wane ne it ñoom jot nan addiya ji nga xam ne jot nan ko mu toll si 9000 pake ndox yoo xam ne dañ ko indi ngir def ko si màggalug Serigne Touba gi ndax ñoom ñëpp ñu si bari Abdou rek 88 la gëj Touba bari ñii 88 leen gëj Touba am na si koo xam ne ba mu fi gëjee it yàgg na lool mat na lu mu gàtt gàtt 30 kon ñoom seeni jëf moo nekkoon nii daal ñu ko doon indi ñu ko doon jébbalee si waa xidma di ko toog si loxob sëriñ Makhtar Kane kon jërë ngeen jëf. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Serigne Abdou Ahad Lo. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di nuyu tur sëñ Fallou Mbacke mi jëwriñ ji di la sant bu baax ci sa taxawaay ci sa jëf-jëf ci réew yi jëf di la xamal ne daayira mu xadamtu xidma jot na ci yow àdd yi nga xam ne nii mbokktaay bi ñoo ko léegale woon ngëm ci jumaa yi ci màggal gi ñu ñaan borom bi nga xam ne dala tëw ko mu defal leen fa yoolub àddiya ndax boroom bi daa sant sëñ Tuubaa njukkal ko mu war a añ yéene ci mboolem jullit yëpp ba tax mu woote màggu réy gii de képp koo xam ne mbëggam la sans mbég la nañ ci feeñ te lii mbégte la kon ñu ngi sant yàlla baax ci liggéey bi di nga yàlla mu gën a mu gën a jëm kanam gën a yokk gën a naat ndaxte ay mbokk taalibe kat bu ñu dégalee mbir seen ñaq ngir gis seen seen seen sëriñ Sëriñ Tuubaa moom nangu moo ci am rek waaye Sëriñ Tuubaa mooy fay ko yàlla Sëriñ Tuubaa fay jëf ji guddal fan yi indiwaat ñëpp tubaa ñu ànd màggal gi wasalaamaaleykum wa barakaatuhu jërëjëf صلاة الذي في كل بسار وفي سفر حماني على ما